ay ayca asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu mbokki auditeurs yi mbokk yi ñi nga xam ne yéen ngi ñuy toog di ñu seetaan euh, fii nii ñu ànd ak yéen tey ci euh, avec la MIFA de Kikila yoon ci ndog li nga xam te ni moom la ñuy baaxoo di def saa su nekk at mu jot rek bu ñu wooree ba toll ci jamono jii nii ñu fas yéene def ay ndogu daal di koy yóbbandoo fu mel ni prison ba ñu ànd kook am di jàmm yi soppee xar yi ak nawle yi ñëpp rek képp ku mu mënti doon. Euh, ngeen gis ambiance bi sànq ba ak ni mu fa demee ñu ànd ceeg euh, gars yu baax yi euh, ma toog ceeg kenn ci ñoom fa Sénégal bàyyi mu nuyoo après ñu seqante moom quelques laaj ak tontu maa ngi lay ziar baax a baax a baax. maa lay fay Seydou maa lay fay. lay ziar waaw ñu am sant bu baax a baax a baax. jàngat nga am ci lii dafa nekk dafa nekk lu rafet quoi dafa nekk lu rafet toll ni weeru koor moom parce que def ay xéewal di ko jox jaamu yàlla yi dafa nekk lu rafet. macha allah defe naa defoon nañ ko daaw defaat defaat nañ ko ren une deuxième fois lii dafa nekk initiative boo xam te ne lu rafet la quoi lu rafet la lu weeru moom loo si mën a def jaamoo pour jaamoo ko yàlla rek da nga ko def quoi. Euh, na ngeen si daaw yaa ngi fi woon. waaw na daaw ñu ngi fi woon waaw. Euh, moment bi ngeen di dem di ko yóbbul fu mel ni prison dixième euh, yéen bi ngeen demee ak Fono ban sentiment nga yëg. daaw daaw je me rappelle daaw dafa fekkoon ma génn ma nekkoon Mauritanie Mauritanie la ma fekkoon alors mais gisoon naa photo yi gars doon ko envoyé. si internet bi yëpp quoi. mu nekk dafa nekkul daal lu rafet quoi dafa nekk lu rafet lu gën. parce que weeru koor moom loo ci def lu ne rek. Ah. amul pertement. Ah. weeru weeru weeru promotion la. weeru weeru weeru jaamu yàlla la loo ci def lu ne rek amul pertement quoi. ayca kon euh, toujours ñu ngi ci même procédé bi ñu toogaat ak euh, beneen jëmm joo xam ni moom tamit euh, yàgg na ci mbir mi. yàgg naa ànd ak euh, famille mi fa euh, mi fa kikilaal yoon bi ñu yàgg defandoo lii nii nga xam te ni mooy ndogu yi nii comme li ma ko waxoon sànq ñu koy def saa su nekk bu ñu tolloo ci moment bi nii ci weeru koor gi def ay berne daal di daal di euh, daal di koy yóbbu fu mel ni prison dixième ñu ngi lay ziar baax a baax kilifa gi di la bàyyi nga présenté wu. maa ngi lay ziar baax fa Seydou maa ngi a baax a baax a baax man la Baye Kara animateur Zik FM kees di rafetlu initiative bi nga xam ne moom la kii def la la fa kii yëpp di leen kontaane baax a baax a baax di nuyu présidente bi Fatou Niang mi nga xam ne suñu jigéen la suñu xarit la naa li yombul joxe ñëpp yombul donc tey boo ko kii dem nekk suñu jigéen nekk suñu xarit boo sa suñu idée yëpp ñëw fekk si ko waaw tey ñu ngi koy ñaawal suñu borom duñ ko sàmm dañ koy mën saa su ne moom ñi ma àndal ñëpp nag parce que ne xam na ni koor moom suñu borom moo koy fayal boppam rawat na nga yëkkati sa dërëm def si di nga di ay ñam yóbbu hôpital wala prison ba jox ñi nga seen doole demul noonu wala am problème mu ndogu nga yëkkati joxee ndogu ñu ndogu kon donc loolu des bu rafet daal waaw. Euh, ñoom ñu ngi ci ñaateem édition. mais si sixième édition xaw ma cinquième ah. maanaam sixième édition en tout cas en tout cas bu ñu tàmbali ah. année ñu def don yóbbu prison ya chaque année si ñu def don ànd ci maam koor gi. son énergie yu ñu def leeratu maa li nga xam ne moo di euh, safar mu nekk yoo xam ni maam maam lépp mbir suñu borom la te mosuma dégg ñuy laa mi fa dëkk ñu ngi dëgg soirée wala ñu ngi dëgg dégg naa laa fi ma def safar si weeru koor si weeru màggal ma dégg naa ñu def don yóbbu prison ba gis naa si ñu def don ndog yóbbu hôpital régional kon nekk loo xam ne kon du ay caaxaan mu nekk loo xam ne maam mbir suñu borom la si si yàlla lañ ko jëmee nekk rafet channel yëpp jigéen ñeeg góor ñeeg ñëpp ñu ne ñaan su boom gën leen a kàttanal lu ñu mën ren rek yàlla ñu mën lu ko raw déwén sa mbiru sa mbiru suñu boom amul tànk ginnaaw tànk am lam rek chaque da ngay gis mu gën a yokk chaque année gis mu gën a mu gën a gën a naat ba gis nga ren ren jii dañ see boole cant ah, joxeen da koo pare dañuy am cant ah. am seeg Papa Ndiaye Kara si cour la mu ñëw bëggal ñuy cant ambiance kafoore fa loolu la ñu xam foofu ah. la ñu xam ambiance reetaan bokk lépp nekk benn loolu ñu xam. macha allah waaw. Euh, di baax a baax moom Baye Kara. ayca ñu toogaat ak beneen jëmu joo xamante ne moom daanaka foo tuddee kii kii rek daal koy tudd saa su ci nekk mu ngi ci wetam euh, nekk doomu ndeyam di ànd moom saa su nekk te lépp lu muy dugg rek euh, mu ngi ciy ànd ak moom saa su ci nekk kooku moo di Ouze Leroy di ko nuyu di ko ziar baax a baax di ko dalal di ko laaj xelam ak xalaatam ci bis bi nga xam te ni ci la ñu nekk Ouze. waa jërëjëf Seydou ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu am di jàmm yëpp di nuyu euh, ñi nga xam ne ni actuellement ñu ngi ñu ngi ñu ngi jàpp ci li nga xam mooy liggéey di jàpp nuyu def ñu fi tey ñëpp waaw tigi sama sama sama jigéen la sama jigéen la sama nit la yi sama rakk la waaw ñu nekk fi nekkin bu yàgg lool lool lool dëgg booba léegi te dara dara mus ta mus mus ta ñaaw waaw moo tax à chaque fois rek maa ngi ko moo tax à chaque fois mu munti xew rek damay damay daal ñëw taxaw ñu tam Euh, nan ngay dundee bis bi bu ñëwee ci période bi nii ñu def ay berne yu bëri daa di koy yóbbu fu mel ne prison dixième bi di ko jox ña nga xam ne ñoo fa nekk te bëri nga fay soppe lool waaw dañ ci dañ ci moom mooy lépp nit ki lépp def rek euh, nga xam ne moom mooy jaamu yàlla da lépp lépp jaamu jaamu yàlla la nit ki lépp looy def nga ci mën a xool ñi nga xam ne tey jii euh, seen doole jëmu seen ginnaaw wala tey dimbali ñi nga xam ne tey tane te dañu dañu leen ndogu la partage la jaamu yàlla mu nekk benn weer nga xam la kon yaakaar naa nit ki lépp loo xamante ni def nga ko rek waaw tamit aussi dañoo bokk si ñun monte ne caay na leen ginnaaw mais tamit société bi lañ bokk comme bu ñu leen fàtte rek a si ñoom tamit yàlla def tamit ñoom dem ndeysaan bërëb bu ñu nekk noonu dañuy bàyyi xel li nga xam ne moom mooy rajo bi te rajo bi moo moo ñu boole ci gi kon tey bu ñu jëlee dara yóbbul ko rek lu gën la macha allah lu gën la euh, muy kàddu Ouzin le ayca mbokk yi ba léegi rek ñu ngi ci euh, li ñu nekkoon sànq sànq ba tey di ci euh, partager ak yéen mu di euh, ndogo yi nga xam te ni la la famille de Kiki La Lionne ñoom ñoo koy def mu di la mi fade Kiki ñu toogate beneen jëmm joo xam ni tey ràññee nañ ko lool ci rajo bii nii di Sama FM Zik FM Thiès mu nekk jëmm joo xam te ni ku jàmbaare la lool ku yéeme lool mu di grand Sidath xam naa ne yaakaar naa ne ngeen si daaw. yi fekk ko fi mi ngi ba Mauritanie ren mu ñew fekk ko diko dund kon makay lañ laaj ne ko Grand Sirat gannaaw bu mu nuyo ba pare mu wax ma ban sentiment la ci am ak ban gis-gis la am ci ndogu yi nga xamanteni tay wa mi fadi kii ñu ngi organiser saa su fi nekk wa alaykum assalam wa rahmatullah ñu ngi lay bu baax ñu ngi lay di nuyu mbokk yëpp di rafetlu li parce que li ni dafa nek lo xamni lu am solo la wax deug yalla joxe surtout mu ci wéru koor bi nga xam da ko def chaque année mu diko def su ma juumal bi mooy quatrième édition mu koy def ci weeru koor gi kon sant yàlla bu baax a baax bu yàlla defee daaw fekkuñu fi daan nañ fi fekk nag mais bu yàlla defee daaw ñu fi ren mu fekkoon ñu génn ren mu ñëw fekk ñu kon duñ def lu may assisté ko kii gi tamit nekk koo xam ne wax dëgg yàlla sunu jigéen la sunu rakk la su sunu animatrice la sunu lépp la daal kon lépp lu muy def rek wax dëgg yàlla danaan moom yëpp yi moomu ko moom moomu ko ñun la ko jagleel yaa ngi dégg ak lu mën defee kon duñ mën lu may rafetlu léegi ñëw di jàpp et puis xam nga ñu nekk ci weeru koor nit woor ba ngoon jot nga yëkkati benn affaire daal ko koy jox yaa ngi loolu rek yàlla sunu bopp bu ko fayee ñëpp da nekk loo xam lu saan baawal la rawatina gis nga éditions yi passé dañ ko daan defar yëpp hôpital zonal daaw bi ñu defaree defar yëpp ñu jël ko yóbbu ko fi nga xam ne mooy prison prison bu Thiès fa lañ ko yóbbu ren aussi ñu fas yéene defaraat ba mat yóbbuwaat hôpital zonal ngir daal ña fay daj que li tax mu am solo am na ñoo xam ne tey ji dañuy nekk hôpital régional heure dog fekk leen fa mu métti ñoom même bu dul sax koor parce que yu mel ni ku ko mën a da nga koy def chaque instant mais bu yàlla defee na nga koor moom mënuñu wax ci daje dañ ciy yàlla daal sant yàlla baax a baax Seydou di rafetlu di ñaan yàlla yàlla suñu bi ko def ba muy gën di yokk gën di mën te képp xam ne mën a ko si ñu ngi woo lii daal parce que lii ci ak solidarité la ak acte social la kon dañ ci woo ñëpp rek koo xam ne mën nga rek jéemal nga ñëw jàpp ci jéem ci da affaire daal am na ci solo kon wax dëgg yàlla Seydou. macha allah acte de solidarité la acte social la boo xam te ni tey ñu ngi ci woo képp koo xam te ne yaa ngi ci diwaanu Thiès nga ñëw jàpp ci bu baax a baax. Euh, bis bi nga xam te ne tey euh, euh, moom moo di bisub la mi fa de Kiki Laal yoon. ci joxe ndogu bi nga xam te ni moom lañ baaxoo di ko def saa su ci nekk rek comme ni ma koy waxee ñu toogaat ak beneen jëmm euh, mu di Pa Maguette euh, mu nekk koo xam te ne macha allah pas-pasam ak euh, taxawam ci rajo bi ku ne gis na ko mu nekk ku baax lool ku yaatu lool macha allah mu ñëw teewe bis bi ñu ñu fas yéene cee jox laaj ko ci xelam ak xalaatam ban jàngal laam ci bis bi nii tey Pa Maguette maa ngi lay ziar. Euh, Dakar Dakar noo gisee bis ah, bis bi xanaa neex rek ah. parce que waa rajo bi moom dañoo nekk ñu baax ñoo xam ne euh, ñoom daal mënuñoo wax ñoom lu bari mm. di leen ñaanal yàlla rek ñu guddal yàlla guddal seen fan amiin amiin ci barke seen am wax na sala sala di ñaanal kii gi nag yàlla gën kaa yokk bu baax a baax amiin di ñaanal kii ki yàlla gën kaa yokk euh, ak la mi de kii ki mu nekk ñu ñoo xam ne mooy loolu Pape affaire daan na la fekk Euh, nan nga daan dundee boo bu ñu mësaan dem di yóbbu ndogu yi. ah xanaa hmm. daan yaram bi daan daw. waaw macha allah ren tamit noonu la nar a defewaat. waaw macha allah di ko jaajëfal baax a baax a baax moom ci euh, joxe ndog yi nga xam te ni ci la ñu nekk nii euh, ma waaxu ba diwaanu café gi daa dafa fekk ku mel ne Mamour Nana ak grand Ndiobu Junior bu ko defee ma fi seen seq ak ñoom tamit comme ni ma ko defee ak ñeneen ñi rek daa leen laaj seen gis-gis ci bis bi nga xam ni tey ci la ñu nekk nii tey Euh, Mamadou ban jàngat nga am ci bisu tey bi tey. waaw le euh, grand maa lay jaar. di jox sa waay di defal waay teewaay bi di nuyu suñu grand technique bi ba Touba di xam ne ñu laa fekk sama gars lii moom ak sant la rek sant yàlla dong li naan euh, àdduna moom boo ci nekkee del def lu baax yaa ngi dégg te bit bi yaakaar naa ne lii moom daanaka chaque année ñoom ñu def ko laaj mi bàyyi liggéey ñun doon seen partenaire doon ñoom nekk ñoom nitu jàmm. nekk ak ñoom fii mu doon rajo loo xam ne dafa dafa rafet kon tey bu ne def benn bis boo xam ne dafa alaa doome ñu war nañ cee mën a teew ñuy wax euh, def ci liggéey bi ndax ci weeru koor la nekk lu booy def sa bopp nga koy def lu booy def loo xam daal lu baax la sa bopp nga koy def leen lu booy def sa bopp nga koy def kon yàlla bu ñu xiiree ñu ñëw di def lu baax xam nga nekk ci ci gi di di fekk ma gars yi nekk ci biir ci liggéey bi yooyu noonu kon ñun am lu ko lu ko rafetlu da ko sant dafay eh dégg di ko ñaanal soxna si jàmbaar la waaw jàmbaar la ndax lii maanaam yombul barke alquran karim te kii nitu nit ñi la mu doon nit ku baax nit koo xamante ne am na ñëpp jàmm wax yàlla kon bu xewlee tey suñu biir tey mel na ni ko moom waaw ñu ñoo ngi ciy kontaan di sant di ko ñaanal yàlla yàlla mu yàggal ay ati ati ati ati ati at yàlla jubóolal leen te def leen benn barke alquran karim adduna amul solo lii rek la amul leneen lii lañuy def tey bu subaa ñu nekkaat ci leneen mu ñëw animé jóoba nekk ci kenn nekk ci wala lii loolu loo xam ne ñoo ngi koy rafetlu ku ku ku mën defit nga koy def ndax lu waay defit yàlla kafe nga koy def kontaan na suñu xool seet na parce que sëñ Tuubaa Mbàkke macha allah ko jaajëfal baax a baax a baax moom euh, Mamour bu nekk kàddu yu am solo ma ayca moom tamit euh, moom laa fekk fii nii ci waañ bi mu nekk ci wàllum café gi ne ci wàllum segg bi moom Ndiob Junior bokk ci kuréel gi nga xam te ne mooy la mi de Kiki Laal yoon

yàgg def nag dëgg yàlla ndogu yi ay at ñu di ko def kon dañuy kontaan baax bi nga yàlla mayee ñu fekk wax ko def incha nañ ci baax a baax a baax ñu ko def sax en général ñi am baax euh, tey bis mën nañ ne gën naa ala dama kay li daan kii te loolu lañ daan ñaan saa su nekk yéen ngeen di def boo heure bi jotee ngeen def lépp ngeen jël ay bernde yu bëree bëri bëri soit prison dixième bala wala hôpital régional moment boobu noonu ban sentiment ngeen yi yéen ñi nga xam te ne yéen a ci biir te xol bu sedd nag day naan naan parfois rek dégg ñi ni dama def dee bu dekkee ba ko fa mais lu def yaakaar naa di ko fekkee chaque année rek da am mbégte bu baax a baax a baax contentement lañ ciy am yàlla xam na ko nag yëg-yëg naan affaire yi moom doon loo xamante ne si boo ci yokku da ngaa wàññi te chaque jour ñu yokk lañ ci bëgg te chaque jour yokk lañ ci ama ndax da defoon ko daaw jéeg dem international daaw ñu demoon plus yóbbu fa ay don ren jii ñu ngi fa wax dëgg yàlla bëgg yàlla kontaan rek baax rek dëgg yàlla am nañ ci yokkute bu baax te gars yi fekk nañ ci gars yi ci jàpp bu baax a baax a baax dëgg yàlla am nañ ci satisfaction totale dëgg la lan ngeen ne ñu ngi ci dëkk bi di def euh, te am euh, genre ni tey tey def te yàlla rek tax te xaaruñ ci kenn lan ngeen leen di wax di leen woo nag amul xaaji amul seet dëgg yàlla ndax def gi xooluñ ci kenn nag yàlla rek moo tax ñuy def ah. kon kuñ ci fekk dëgg yàlla ñu jël képp koo xam ne yàlla rek moo tax ma ñu ngi la ciy woo mais képp ki def beneen na ngistal wala leen loo ci bëgg rek yaakaar naa ne mën nga xaar ndax ñun defuñ ci loolu suñ alal ji ñu ciy def ak suñ temps bi def defuñu ko pour dara yàlla xam na ko def ko pour néegu doole yi ak def te yàlla tax te xam ne lu jaadu la yaakaar naa koor moom loo ci def rek defaloo kenn yàlla tax moo tax nga def am nañ ci daal mbégte bu baax a baax baax di ci woo ñëpp dëgg nag bëgg chaque année nag muy gën di yokku bu sañoon dëgg yàlla wër kees gépp du ko def nda hôpitaux yi bari nañu sonn bàyyi nañ sant daal wax dëgg yàlla bi ñu ko fekkee daal sant yàlla bu baax dëgg yàlla. macha allah ñu bu wér Seydou. waa xanaa kontaan ci bis bi rek ndax bu ñu yàlla mayee ñu wóoraat ko ba fekkee ko defati ko rek dañuy santaat suñu borom bu baax a baax a baax te xam ne moo ñu ko may ndax weeru koor gi weeru ndimbal la weeru njéggal la comme buñu ñaay buñu bu ba heure bi wala a xalaat ay malade wala wala xalaat ñi nga xamanteni seen loxo jottu seen ginnaw dañuy santat bu baax rek contentement dal lañ ci am di ñaan yalla mu yok tay yeen fi nek depuis ay at euh ana yan euh, jafe-jafe ñi di jankoté sa ci nek ak lan ngeen di xaar ci askan bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk par exemple am ay bonne volonté nekk ak ñoo xam ñu di war a fi nekk yoo xam ne tey war nañoo fi ñëw jàpp waaw fii nag moom wax deug yalla amu ci ben jafé jafé ndax da melni xol ye and motax tax neex dañuy jël suñu buy ak suñuy daqaar suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm boole ko daa di ñëw defar lii rek waaw xanaa ku ci ku ci bëgg a jàpp rek nga ñëw ndax affaire yi yaatu na moom ñu ko soxla bari na ndax mi ngi mel ni tey moom dañoo fas yéenee dem hôpital naa joxe ko fa daaw dañoo demoon prison ba noonu lañ koy defee waa chaque année noonu waaw di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di gërëm waa mi fa dëkk kii ah di gërëm Zik social di gërëm les jeunes travailleurs ya. ñëpp képp ku ci japp suñu mama de cœur yeeg ya. ñëpp ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yalla yalla may ñu fekk ay at yu bari rek inshallah allah. ma ngi leen di delloo ziar bu wér a wér. xanaa kontaan rek di leen nuyu yeen ñëpp ndax loy def mom lu baax tanki kanam la am amul tanki ginnaw di ñaan di ko fekk ay ati ati at ci bàkki sëñ Fallou Mbacke wax deug yalla oh, fi mom dara jéxu fi di gërëm ñëpp nak di sant ñëpp ñu ci def seen dërëm ak seen ñaan dërëm. vraiment yaatu na ndax parce que soo demee fekk ay nit nga leen di dimbali tey ji yàlla moo lay fay yàlla mi am fay yàlla na leen suñu borom fay ak jëmmi Seydina Mouhamed vraiment kontaan nañ ndax man maa mun a wax ci mbooloo mooy loolu. Euh, te ni amalaan ngeen ko euh, ci joxe ay ndogu jëmale ko ci mel ne waaw bés bi duñ ci def xanaa du di sant gën a santaat yàlla rek comme dañ ko daan def ay ati at ren ñëwaat ñu fekke ko dañ ciy gën a santaat yàlla rek te ciy sant ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi ciy participer ñu ngi ciy def seen doole ñu ngi ciy def seen mën-mën ñu ngi ciy def seen lépp ñi amul yéene ñëwuñu sax ñu ngi leen sant bu baax di ñaan yàlla lii ñu gën koo fekk tey xam lii moom réaction bu rafet la initiative bu bu bu nice la tey lu war a mën a jëm jëm jëm kanam ñu ngi ci santaat bu baax a baax a baax bu baax ñëpp di sant ñëpp. bis bi ñu dugg yàlla nañ si génn si bisimilahi rahmaani rahim yeggalee ko alhamdulilahi rabbil alamin bisimilahi rahmaani rahim salaamun qawlan min rabbi rahim wamtaasul yawma ayyul mujrimun ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعنهم بدون هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إثلا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتسد أرجلهم بما كانوا يكذبون ولو نساء لمزحناهم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 Euh, nekk ki nga xam te ni tey maa ngi ko fi ma ko fekk sax mën naa ne soo ba léegi ku yéexoon doo ko fekk doo xam ne mi ngi fi <laughs> macha allah di ko ñu di ko ziar baax a baax a baax sunu yaay booy te di ko laaj bu baax a baax baax ana na ban jàngat la am ci bisub tey bii di tey yaay booy maa lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar sama xarit bi. Mhm. jàngat bi ñu am ci bisub tey moom mooy sant yàlla rek bu wér. ndax lépp loo def rek ren mu daaw mu jig la bu renee war nga koo tollanti. Mhm. tubaar fa kàll macha allah ki ki ànd ak ay xaleem man nag Fat Niang président bi moo ma fi indi sama saalixaat boobu nga xam ne oo ma fayam mm-hmm. moo ma bëgg fu mu jëm yóbbu ma lu mu am jox ma ca mm-hmm. barkeelaaji fàll bu bu bu koor jotee ñu def nii def seen i ndogu mm-hmm. bu màggalu Tuubaa ñëwee safar dikk tamit nii la ñuy defaat def seen i añ def seeni i reer ma di leen ñaanal nag seen an and bii yàlla na yokk ba mel ni sooroor ba ca jumaay Tuubaa lii rek laa leen di ñaanal ci barke Alaaji Fàllu mi nga xam ne moom rek laa yaakaar man na gis ngeen ko maa ngi ni ci sama salaat te sama soose ngay pombiteer baa ngi ni ginaar ya tamit ma nga ne ñuy sandis uh-huh. am na nu ne ci bool bi nii rek laa def. <laughs> macha allah mi ngi noonu nii rek la def euh, mu nekk sunu yaay booy nga xam te ni tey mooy euh, gérer lépp lu jëm ci wàllum berne gi fii nii ci la mi la mi faade kii laa yoon euh, li jëm ci wàllum joxe ndogu ci koor gi nii mais yaay booy bu ñu tollee ci moment bi nii tey ñu war a jël ay berne yóbbu ko diwaanu hôpital régional wala foo mel ne prison dixième ba ana ban yëg-yëg ngeen ci yëg comme ni ma ko laajee ñeneen ñi. xanaa kontaan kontaan ndax boo manee da ngay xool ca ñamanul. Hmm. ndax ñun mën nañoo defar joxe waaye ñoom fa ñu ne mënuñu faa génn mm-hmm. te ñi ci nga xam ne ña nga ci hôpital ba ñoom it ñuy dem di leen yóbbul ndogu yaakaar naa sant rek la mm-hmm. ndax lu baax moom kenn du ko def bari ci mm-hmm. kon ca kaw ca kanam rek ci lu baax ci xale yi lii daal lañu wax allah di ko jaajëfal bu baax a baax a baax Seydou ñu ngi ziar waaw delloo ziar ah bis bi de kontaan rek vraiment lii moom dañ koy def chaque at donc dafa nekk lu rafet daal te day nekk loo xam ne day jox koo ay nit parce que lii rek la gars yi am ñëw retrouvaille bi daje fii foo ree jàmm yi quoi dafa neex vraiment kii ki moom suñu sœur la bu xewlee ñëpp a war a teew bàyyi li ñuy def ñëpp fekk si ko mu nekk lu rafet acte bu noble nekk koo xam ne ku yaatu la jigéen ju baax bon liggéeyam sell na gis nga li muy liggéey ci rajo bi moo Ousse Leroy fa leen fekk foo ree lañu xam jàmm ñi dafa neex daal vraiment kontaan nañ ci bisam bi di ko ñaanal moo xam li mu bëgg suñu borom defal ko ko yàlla yokk xewali ba li mu koy def ak benen anam bu gëna reuy comme ni mu koy defé ni loolu lañ koy ñaanal yeen di remercier de leen wax ni liggéey bi rafet na sel na ba Touba di ko remercier bu baax parce que yi muy def yëpp mënoon na ci baye fek mais lepp pour mu rafet la pour mu ñol la Seydou yeen ñëpp kër gi dal c'est la famille yeen ñëpp gis nañ taxaway bi vraiment content nañ ci yeen bu baax a baax baax encore une fois de remercier ci actes yi ngeen di def ci kër gi lu ñu yéeg ak lu ñu yéegul yéen a ngi ci yéen a ngi ci ay œuvre yu nice yu noble yu social donc loolu dañ leen koy remercier kon ça fait l'occasion di nuyu ay ñoom Moustapha DG di leen nuyu waa kër gi cat ba ñu lim ñu limee dañuy juum waaw ah, vraiment content na bisu mbégte la daal waaw. asalaamaaleykum yéen mbooloo fi teew te xale yu baax yi nga xam ne lu baax rek la bëgg. ba lii ñuy def ñu di ko yaa at mu ne ah, di ma ci invité def ma nag magum rajo bi def ma euh, baayu rajo bi muy xale yu baax a baax xale yoo xam ne lu baax rek la xam waaw te li ñuy def it rek a tax waaw mënoon nañoo dem ci yeneen yoo xam ne neexul yàlla waaye ñoom toujours lu baax rek la xalaat di ko doxal di ko def a ah, kuy def ku ne nag yàlla mi nga moo lay fay moo gën a baax te gone yii wax dëgg yàlla li tax ma ànd ak ñoom mooy gone dañ ne bu wax wa seetee rek mu amaan a ànd ak mag moo tax man daanaka bu ma nee dégg ma ci ñoom man maa ci ne nekk ci mag moo xam ne amul kenn ku ma fi mag waaw ñuy def lu baax moo tax ma sawar a ànd ak ñoom demee nekk seen baay nekk seen maam. nekk seen xarit ndax lu baax rek la ñuy def billaahi yàlla nag dana leen fay ndax ku baax ku ne boo defee lu baax yàlla moo lay fay ah di nuyu nag mboolem ñi fi ne di nuyu Ousseynou Ndour mi nga xam ne daa boot ñëpp di nuyu Ous waaw ak Fat Kiné mi nga xam ne moom itam tey mooy borom bés bi dégg nga moom xale bu baax boo xam ne ñëpp la bëgg moo tax ñëpp a ko bëgg. di doxal rajo bi di ci doxal loo xam ne ah maam ah moo tax ah ñëpp ko ndax ku jaaxle boo ñëwee ci rajo bi mu taxawu la moo ko ak Ousseynou Ndour mi nga xam ne kenn gënu ko man daal li ma wax daal man maa ngi gërëm ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ñu yokk ba yokk gudd fan lool nag ànd ak wér yàlla yokk rajo bi ba yokk ci barke sëñ Fall man nag bàyyi bàcc bu sëñ Fall. di taalibe sëñ Fallou ah wax dëgg yàlla lu baax rek laa bëgg moo tax fu ma ma ñëw jërë ngeen jëf sant naa leen gërëm leen. rahmatulah gars yi di leen siyaar di leen euh, baalu ak si weeru di rafetlu bi di rafetlu aussi tamit seen liggéey macha allah euh, sant nañu yàlla bi mu tollee tey fii parce que euh, liñ naan soo ren mu jig la yàlla def si xéwal tawfiq am incha allah rabi te loolu lañ si jublu te àdduna moom lii moo fi am da ngay ñëw dimbali ki nga xamante ne mooy néew di doole bi ki nga xamante ni kat dafa ñàkk ki nga xamante ne amul xëy ci loolu mu doxoo ki nga xamante ni tamit kootam 10 jours nga dimbali ko ko yow si sa am-am bi nga xamante ni yàlla may la ko muy ñaar fukk nga bokk ko doomu aadama bi nga xamante ni amul fukki dërëm yi mu ndogoo te joxe ndogu ñun ñëpp xam nañu li si nekk. nañ li si nekk ndax euh, nit xëy si ba ngoon amul lu mu lekk nga yëkkati fukki dërëm wala tàndarma wala ndox nga jox ko loolu tawféex la ak taysiir la boo xamante ni yàlla dala koy fay te man je me dis ne àdduna dafa doon loo xamante ni jeex na ba pare sa jëf ju rafet doo nga lay dimbali te doomu aadama ñett yi rek la am muy nit ñi alalam ak jëfam bis boo deewee bàyyi alal ga si kër ga nit ñi gunge ba sa biir bàmmeel bàyyi la fa ak say jëf kon lépp loo xamante ni yaa ngi koy def sa àdduna na doon loo xamante ni mu bañ doon loo xamante ni lay doon def ko ndax yàlla tax parce que ëllëg fay gaa tax ñun nag dañoo doon ay ndaw yoo xamante depuis ba Zik FM saxoo ba tey ñoo fi nekk di apporter suñu pierre de contribution à l'édifice de tout leur projet ak lu mu mën ci demee nag dañ ciy jàpp Kiki nag mu doon nit koo xamante ni si ñun yàgg nañu tey suñ fi doon toog di wax suñu diggante ak moom duñ fi jugee. mu doon euh, mu ngay def chaque édition nag te chaque euh, année yàlla duñ si defalee tawféex ak taysiir te ñaan nañu yàlla muy gën a lii nag jubluwul si leen defuñu ko ngir gistal defuñu ko ngir caméra bi ñu tiim ñuy wax ay wax yoo xamante ne amul mais dañ koy def te yàlla tax te leen si def seen dugub ci fayu kenn du ñu fay suñu borom di sant yàlla nag. di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram li nga xamante ni moom lay yóotu si àddunaam su doonee li gën ci moom yàlla ko ko yàlla defaral mu gis ñëpp yéen tamit di seen taxawaay ak liggéey di ñaan yàlla lépp loo xamante ni daal ñoo ngi ko ciy def yàlla dimbali ñu si bidaay Seydina Mouhamed di nuyu gars yëpp euh, ça fait plaisir euh, ñu ñëw tey ki nga xamante ne mooy si euh, rajo Zik FM Thiès à travers ki nga xamante ne moom mooy sunu consoeur Kikinet euh, Kikinet laal lépp en ñu koy encouragé di ko félicité par rapport ak euh, si euh, li nga xamante ni koy joxe parce que weeru koor gi nga yëkkati tàndama rek jox nit rek dèjà loolu c'est quelque chose rawatina nag nga jël sa alal boole sa am-am boole si lépp di ko séddale jaamu en tout respect. yal na yàlla uh, yokk yiw bi mu nekk dernière édition bi yal na ñu koy ay at kenn bañ a manqué yaa xam tamit loo si jàpp yëpp yal na jàpp leen ak allah en moom moom moo gën a chaque année day gën a kii. day gën a yokk day allah li ma gis ren moom macha allah ñu ñaan rek gudd fan ak wér rek. yàlla yokk xéewal gi ak tawféex rek macha allah kii ki moom borom baax la moom lu mu sumb moom da koy daan moom borom baax la waaw xol bay rëy macha allah moo tax li li bett ma ci moom daal waaw ñaan. waaw ñu ñaan rek yàlla bàyyi ñu fi. Uh-huh. ñu koy def ay at yi at at yi at. waaw mu gën a yokk macha allah day yokk incha allah ci barke Seydina Muhammad parce que hôpital régional aussi dañ koy yóbbu foofu nga xamante ne bii donc euh, am na ñoo xam ne dëkk ñu biir Thiès ñii dëkk a ñii dëkk ba ay euh, Mbuur ñii ay Kayaar fu ne mhm. jóge fa ñëw te amul fa ay mbokk mhm. donc euh, te lii tamit dañ soxla bu baax a baax nan nga am pour yokk ko ñu gën a góorgóorlu rek gën a takk ndigli mhm. waaw gën a góorgóorlu rek macha lii moom ndam la la ndam la waaw ndam la. bon bi ñu la nuyee ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax di siyaar gars yi fi nekk ñëpp ñi nga xam ne actuellement nii ñoo ngi ñëw ci ndog yi waaye ci lii nag dañ koy rafetlu bu baax a baax di ci kontaan ndax ku mel ni kii ki sunu jigéen xalaat xalaat bu rafet bii nga xam ne mooy weeru koor mu ñëw defu ndogu loolu tamit ne dañ ko ci sant di ko ci gërëm ay ca di ko si njukkeel di ko si ñaanal jàmm di ko si ñaanal yàlla suñu borom defal ko ci ay tawféexi tawféex yàlla suñu borom defal ko ci lépp lu mu ci yóotu ba lu mu ci bëgg yàlla suñu borom ko ko si doole Seydina Mohamed kontaan nañ ko ndax jàpp naa ni mais chaque weeru koor mi ngi koy def donte mën na ko wala mënu ko mais mi ngi koy jaayante ndax xam nga koor gi rek moo tax ak yàlla suñu borom di ko ñaanal daal bu baax a baax a baax moom kii di ñaanal waa rajo bi yëpp di kontaan si ñëpp jaajëf